bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayyidina wa alana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi xayra xadimi ahmad ibnu muhammad ibnu habiballah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Abdou Mbacke ñu ngi lay nuyu turu sëñ am turu njaboot gi ànd yëpp tam leen nuyu suñu kilifa bopp ga muy moom Seydou mooy Mominatu ñu Cheikh Abdou Khadre ñaan yàlla bàyyi ko fi yàgg-yàgg ak suñu aboo su way jur yàlla ko yàlla yàggal bari bari jabootu moom Cheikh Anta gépp jabootu Cheikh Mouhamadou Mamoune gi ñu ngi lay nuyu baax ci tur si am sa ñëw gi ñëw tey fii ànd ak mbégte mu rëy rëy euh, ñu bëgg a wax sa xëyu ci suñu làmmiñ ci xol yi nekk moo tax waaye li ñu ñaanal moom mu gudd mu bari rek yàlla nga àgg fa nga jëm baatu àgg na moom lépp ci biir kon sim yàlla nga àgg yàlla na cet seexlu euh, yéen ji nga xamee ne way jur yi amoon nañ ko ba ba nga feeñ ci loolu yàlla na yàlla na sama ak ci yow te ñaan suñu am di yàlla yokk leer yokk yërmande taa suñu ci barkeem yi sëñ bi wax léegi sëñ si mu Jóob Njaay bii wax léegi amul lu ñu ci mën tegaat wax ji na euh, yéeme na euh, matan lépp tim nag ndax loolu rek lañu seen ci moom euh, ndax nit dana yaakaar yëf te te mënta yaakaar wala mu denc mbir yaakaar mbir fi dara te loolu yaakaar ji nekku fa mm-hmm. waaye alhamdulilah rabbil alamin sooyu leen ndax Sëñ Tuubaa ngeen yaakaar te Sëñ Tuubaa ci moom ndax génn ko jenn wet tey li mu doon doon sëñ bi ci bopp nag jikko sëñ bi ko nekk nag sëñ bi rek am solo bu jikko ji mu am yoon ñu ngi wax ne ne ko euh, Sëñ Tuubaa pas-pas laa ni ñëpp ndax ñu bokkal ñëpp pas-pas pas-pas lañu jëloon bàyyi bàyyi dañ bokk lépp ñëw jaari pas-pas ndax yonent yàlla nooy ko doom ja ak soxna si ñu ngi safaan ba dañu bokk di seen bàyyi pas-pas waaye bu dee jur rek mën na ko def kon Sëñ Tuubaa dañu jënd ci moom mooy sa pas euh, Cheikh Sidi Mokhtar képp ku ci bokk ñëpp war nañoo war nañoo xam ne ban personne maam da bokk suñu tuwaay ba noppi jëlal lépp mu jaay ko jëlee ko taalibe ba def jëf joo ne ñëpp gis ko ba loolu gën a dund ci kër googee ndax mooy mooy mooy mooy yokk ab murid daraja ndax day fekk barab dara nekku mu def fa dara fekk mu tuuti mu bareel ko fekk mu bari mu barkeel ko kon ni ngeen def gis ko baax yoon yëpp war nañu ci roy te loolu mooy ak taalibe bi ndax am na mag moo xam ne ma sëñ dañuy jàpp ne see see see moo njëkk a wane sëriñ moo njëkk a wane sëriñ bi dafa ci bi sëñ bi ñëwee Mbàkke bi ñu doon woote yooyu bi ñëwee Mbàkke dafa am gan gu jógee ci Alaaji Maalik ñëw fi bi sëñ bi woole maam si ànd ko di wutal ma ndawal maam si ànd dem jënd aw nag mais bi mu jënd nag yi ba ñëw jaar Mbàkke yu ëppal mu jiital ko neen romb sa mbokk moo xam ne da koo ñori likaay ju likaay yoon ni ko dama jàngi kii sa noori góor yéen bokk ndey te gënul bàyyi yéen bokk bàyyi te gënul ndey topp sa noor bi mel ne mel ne ab si wooram maam si ne ko béy ba jaral na ma ba mu dikkee wax ko sëriñ bi sëriñ bi ne ko ñëw nga si ànt mu ne ko waaw mu ne ko loo indi ginaar nga ba jaaral na ma mu ne ko baat boobu boobu ñu tàggu baa yow fii ndax man sallallahu ma képp tax ma ànd moom kon sëñ bi lépp lu mu def da ko jaral kon sëñ bi yàlla bu suñu yaakaar si abdu mi te du ci tas incha allah ndax suñu tubaab moom li ñu wax ne li ko li ñu yaakaaree bu ko bëri yi soo ñu ko nangu rajauhum xaqaqun wa muliku fii abadin maa laa yaraahu maliku maa laa yaraahu maliku nag moom bu mënu ko gis ndax boo gis da ko loxal ci yóbbu sa borom dëggal suñu ñu la ñu la jox ci loxoom ak njaboot gépp daal ku lim na ngay jum waaye buñ tuddee kenn rek tuddaale ñëpp rek si am si xolam sedd guy yàlla xam ne bi ma ko waxee itam euh, démb na ma ko wax ne maanaam ma fa altine bu fekkee amul ki ma ko da ay seet boo ma ne kulu kër du ma la du ma ànd yoon ne ka jaawañu ko tam fii nii am naa maam ju faatu léegi ñoo ngi koy denc ne war faa dem taxaw ji taxaw ji boobu ndax sëñ Tuubaa ba gën a damaa xam nii ko defe fii mu gën la ko defe ñu fukki ixlaas mooy aw njëriñ door bàyyi ko te amoo ko njëriñ képp lañu bëgg rek moo ko njëriñ foofu rek loolu lañu bëgg kon suñu yaakaar dana ci loolu suñu xel dana ci ndax dañ euh, ne barab bu ne nañ fa gëj ji moo fi jébbiwaat kenn mës a ngëj ak ngeer fii saxaw ak jébbi wala leen déedéet ngeer rek fay jébbiwaat hmm, kon kon kon yaakaar jooju nga xam ne sa mi nga xam ne mooy tànn ci ñi gën tànn na la boole yi sëñ Tuubaa tànn naa la ba boole fi mu la boolewaat hmm, loola ci bàkkee ñu ne ñaan rek yàlla dana cet seexlu dañu ñaan rek ndax sëñ bi neen cat day topp ni ba ci bàmmeel nit faatu ñu di sàngam jërti ñaan la te ku jërti ñaan amut ndax sallallahu alayhi wasallam moo gën ñëpp te ku ñu ko dénk ko ñaan la kon yàlla yàlla mu si cat sëñ bi a euh, ma li ma li ma yéene mënu ma ko daal ndax daa bañ cat jiitu ma ci yëf yi rek ndax nit ki bu la bëggee euh, cat nekk na ci nit sopp sax wax la wax loo xam ne mel ni koy catu te léegi déedéet waaye li yàlla def ci yow ku bëgg wax dafa bëgg jëlee kon nañ nañu ceel rek te bàyyi ko yàlla mu aaral ñu sàmmal ñu la rek sàmmal njaboot gi àndal na ngeen xam ne yéen itam seen yaakaar tas ci moom mukk ci àdduna ndax euh, sëñ Tuubaa melokaanam moo fi indi nit ñi waaye jukko moo fi ay nit ñi jukko sëñ nag mooy di rek jëllale jariñe ak jëggale ndax mooy yiwi sëñ bi ku ci nekk yaa ngi ci yiw sëñ kon euh, fii nga nekk sëñ bi moom loo am ci moom da ko yurut waaye yaay moom mooy yow ndax da ngeen bokk mu nekk seddoo séddoo ay nit ne bu ñu bokk di euh, nii mu def ñun ñii def nañu ko def ko ñeneen def ko ñeneen def lépp loo xam ne am na ko Sëriñ Tuubaa daa bokk na koy bokk moom mi ni way jur ba defoon kon mooy dañ ko ñaan rek suñu borom dimbale ko saxal ko fi nee naa ko daa man amu ci amu ci man euh, guddi amu ci man bëccëg hmm? ba ma soxla foo soxla foo amee soxla mën naa soxla soo nekk ci la bëgg waaw ndax sëñ bi rek ñu seet ci yaa ngi sëñ bi te ñun sëñ bi képp dañu dund nag waaw am nañ fa lu jutal nag loo doon doon ci sëñ bi nga yor jukkee sëñ nag moom ñu maanu ci yow nag waaye nag doo moo mukk nag waaye nag cër bi ñu jox nag moom ah danañ xaw kii nag ndax moom euh, am na ñoo xam mag du xam nag di di di di di kii kon ñooy bokk taal bi na na ngeen baax yéen ta te xam ne am am am am royteef jafe na euh, dañu kilifa boo xasee am loo fekk sa kilifa mooy sens ndax nit ki am na ñoo xam fekk nañ kilifa loo xam du noona waaye loolu loolu la ñu yàlla waaye bu ngeen am kilifa goo xam ñëpp bëgg mu nekk seen kilifa sans bon tawfeexee ko am ngeen aw yoon wéeru jëm ndax ku xam fa mu jëm xam fa mu jëm kon ànd wax rek mooy des àndu leen ci moom ak ay ay propagande am na ci ay ay ay ay ay conneries ci yàlla ngeen àndee yàlla ku ànd mu jëm ci mu jëm ci mu wóor na tànk tànk yi bu bu teggul ba fu mu jëm euh, subhaanahu wa taala du ko jëmee ngeen topp ko mun jërëjëf kon daa mel ne ci di Sëñ Fall Gass waxoon léegi sama am ja loolu feeñ ci wax ji rek jàng ci bare bare bare hmm, xam nañ ne euh, am xel daa jëbluwut nit ki a naa sukk say bëti boom a sa sawlos waaye xelu sëgg tu jébbalu ndax xel xel moom ci yëpp ñu ko ñàkk passif ndax fi maa toog fii léegi war adduna di ko toogaat te te te nit ñi eh, booy wax ñoom eh, la wax a gudd dañuy gën a xam ci da wax ba noppi waaw ndax boo ne dafa ne rek raw nga buum benn nga yeew ci wala ñu yeew la ci kon yàlla na yàlla bësa ci kàddu yàqu ñuy jégalu suñu wax ba sootim du day waaye fii daal yàlla fi yàlla sotti xéewal yu bare bare bare xéewal yi maam si ànd suñu tuwaa jox maam si ànd yàlla sotti fii eh, def lu bari tam te yow nga yàgg fi te loo fi jaamu yàlla yàlla nangu ko yow nga bañ a fàtte ndax euh, say waajur yi waaye na euh, nañu xel nag léegi bàyyi nañu xel baax a baax mbàkk yàlla na yàlla sàmm te mosal ci ak seen xarit asalaamaaleykum wa rahmatulah